بسم الله صدقوا وليعلمن الكاذبين أم أسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سَاءَ السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوه ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Top. Get it though. Get it though. تسليم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم دار اعتداء أولا يمين تكبير الله yéenay ñaan. ñun ñooy gone yi daara. lan mooy seen baag. jàng jëfe jàng fulla fayda jom ngor. lan mooy seen baag. jàng jëfe fulla fayda jom ngor. lan mooy seen baag. jàng jëfe fulla fayda jom ngor. Yamtida wala Yamido Yamido Yamido Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulilah. alhamdulilah. sant yàlla buur. sant yàlla buur. sant yàlla buur. sant yàlla buur. war na bépp jaam. war na bépp jaam. alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. Yamindo. alhamdulilah. alhamdulilah. Mm. alhamdulilah. Yamindo. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yamin daw sant yàlla buur sant yàlla buur war na bépp jaam war na bépp jaam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah i'tida awwalan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن sadaqallahul azim

jamsunna yonen bi di suñu nit waa yow la jaamu yàlla yow Lamin de yow Muhammadun di suñu yonin yow lay jaamu yàlla nga jégal ma samay baakaar yi ma def fi ulay jaamu ya ulay yaakaar ya ulay jaamu ya ulay yaakaar alquran bi mooy suñu téere moom rekk lañu gëm nañ ko waaku yàlla bi moom rekk lañu am mooy dalluwaay bi buñ ko santane waaku yàlla bi moom rekk lañu am bi suñ ko jàngul xamuñu si duma bu ñu yedd kenn nañ yedd suñu boppa ñun ñi nañ yedd suñu boppa ñun ñi alquran bi mooy ndayu téere yi masa wàcc ci kaw asamaan am borom ak la yi suñ ko jàngul ba dikkal yàlla suñuy mbugal ngalla buñ jooy yàlla suñu boroma yaayoo ate loolu nañ ko xam ñun loolu nañ ko xam de ñun ñi alquran bi mooy dayu téere yi ma sa wàccu si

au gilmé et au din de pan pour éclairer la vie sur terre, pour éclairer la vie sur xam nga lan lool xéewal yi bari na lool xéewal yi bari suma soxla Allah la samaan siiqiin Allah taw sotteeku Allah ma santu la Allah xéewal yi bari na lool xéewal yi bari na lool xéewal yi bari na lool xéewal yi bari na lool man bëgg naa man santu naa man dannu naa xéewal yi bari na lool xéewal yi bari na lool

xewal yi bari na lool ngelaw di daw ñi noyendoo facture du ñaw xewal yi bari na lool xewal yi bari na lool man gëstu naa man sant naa man tànn naa xewal yi xéewal yi bari na lool. xéewal yi bari na lool. xéewal yi bari ma sukku ñaan. Allah wallu ma. Allah xéewal yi Allah mantan na Allah re wali bari na lool re wali bari na lool re wali bari na lool re wali bari na lool re wali bari na lool iqtida أولا ما شاء الله يمين دو yaminto yaminto takbir allahu akbar sëñ dul sëñ dee yéenay ñan ñun ñooy gonay daara ndeysaan yéenay ñan ñun ñooy gonay daara dégguma de yéenay ñan ñun ñooy gonay lan mooy seen baag jàng jëfe fu la fayda gëm ngor lan mooy seen baag fulla ak fayda jom ngor yàqu ci daal gone yi daara awwalan alxuraan bu ñu la ko joxee mel na ni yow nekk nga yonent léegi nekk nga nabi xam ngeen nabi nabi dafa am ak mursal nabi mooy koo xam ne ki yàlla laa baaxe li mu war a jox ñëpp li mu war a jox yonent bi jox na la ko sa biir waaye nag doo ñu defal nangam wol nangam wol diw dalay bàyyi nga jëm yoonu baax di baax di sell mu ni man uudiya bil xuraani faqat utiet na ah, utilijat na a nubuwatu bay na jan bay nee na bu ñu la joxee alxuraan jël nañ li ñuy wax nubuwa muy muy la prophétie def ko ci diggante faar gi nday ndeyjoor ak càmmooñ gi mi ci biir la la lay wësi la yent bi nag mooy yow waxuñu la nga woo kenn waaye da ngay jëf rek nit ñi la nit ñi la gis xam naa ne loolu ngay gis ñu gis léegi ci jamono léegi ak bu jëkkoon nit ñoo xam ne ñi yàlla day di ubbi rek ñu baax man jort naa ne Omar mii jël a bokk Omar mii yaakaar naa ne ci bokk kon bokk xale yi jàng alxuraan tey ñoom laay waxal ak seeni baay ñu gën leen fonk bu baax alxuraan boo ko jàngee ba noppee tam bul ci loolu na nga dem jàng alxuraan na dem jàngi leneen jàng diine jàng sa njàngum addina ñun dey suñu suñu sëriñ ba Ahmadou Saxir alayhi rahmatullahi taala daan wax naan bu la joxee alxuraan daa mel ne dañoo jël or. léngu or boo xam ne bii kenn kenn euh, defar defaragu ko yow yaa xam la nga cay def nag boo bëggee jaaro yaa xam la ngay liggéey la nga cay soxla pour defar sa jaaro boo bëggee lam yaa bëgg yaa xam la nga wut loolu mooy alxuraan boo ko yoree lépp yor nga ko léegi xam-xam yëpp yor nga ko loo jàngante da lay yomb yaakaar naa ñi fi nekk te tey toppatoo mbirum njàng njàngale war nañoo xam lii may wax xale bu toll ni boo xam ne bi amagul fukki at ak juróom alxuraan nekk ci moom lu mu jàng rek man mën na ko man mën na ko xam loolu man lu ma lu ma wóor la te it baay yi nga xam ne ñoo doon jàngaleel tam lañ ci am part de responsabilité bu leen jël mukk nga di leen di leen yóbbu te jàngu ñu xam-xam ba noppi ndax daara Omar Dieng mook daara yu gees mook daara yu bëree bëri ñoo yam képp ku fa jàng alxuraan ba noppi mën ngaa jàng leneen ba dem def loo bëgg def lépp am na fa njàngum tubaab am na fa njàngum anglais am na fa ndax ma xam ah, gis dem naa fa gis naa ñu koy def tey dafa la fa la gën a gaawe te itam loolu tax na ba gis ngeen daara yi ni mu mel ci ci Sénégal léegi bari lool tey góorgóorlu ci diina ji te itam réew mi bokk na ci li ko téye yàgg ngeen ko wax yàgg nañ ko wax ngeen di ko dégg alxuraanul karim kon boog Omar ñu lay ndokkeel ñu ñaan bàyyi itam rawaatina jigéen ñi ñu leen sant bu baax ndax xam ngeen doom lim ni mu neexee nga am ko mën koo muñ ñaari at ñetti at ba fukki at mu ñàkk ci daara ji gisoo ko yow bëgg koo yónni amoo ko bëgg koo defal dara amuloo ko bëgg la amuloo ko wax dëgg yàlla loolu tam te yàlla jox la ko nga yàlla jaar la ko ci yow nga war nga war am ci moom yooyu njëriñ te amuloo ko ngàcc ngalaama ba ngeen nangoo jox seen doom yi ñu jàng kon loolu ngi ci ndokkeel di ndokkeel baay di ndokkeel ñëpp ñaan képp koo xam ne yaa ngi fi boo lëgee barab bi ba yàlla xool barab yi nga xam ne nekkoon na ci kaw suuf ya alxuraan dafa dafa jolli malaayka yi ñëw fa di wër ña fa nekk di leen aar ci di leen aar leen sotti ay xéewal yàlla yàlla na ci barab bi bokk ñu ñaan yàlla yàlla na fi indiwaat déwén nawet bi yàlla na ko yàlla barkeel Omar ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel sa jarabaat yi lay jàppale di ndokkeel mboolem ku fi ñëw di ñaan yàlla yàlla indi indiwaat na fi yoon ak jàmm daara yi gën a dox daara yi gën a dox liggéey bi ah, liggéey yi gën a dox réew mi gën a dox yàlla may nu jàmm may réew mi jàmm may réew yi wër yëpp jàmm fa jasaakumullaahu naa xeeran wa sallallaahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim jërëjëf asalaamaaleykum mbokk yi kenn ku nekk maa ko nuyu ci turam ak euh, santam di leen masawu coono di leen wax ni daje nañu fi ren yàlla nañu fi yàlla boole dajulaat fi ay atu at gannaaw bu ñu màggale sunu boroom julli ci bi salaaw salaam di ndokkeel Umar Diop moo xam ne ni mooy kilifa gi ànd ak ay jarbaatam ñaan yàlla yàlla gën leen jàppale te man nag maa ngi door a agsi ni léegi te man nekk waa Guédé Guédé boobu ñu wax ni ñoo moom kàddu gi ci laa bokk te comme maa ngi dooroon yegg si léegi ma jàppoon ni am na kenn ci mbokk ki fu war a nekk war a mën a jël kàddu gi euh, kontaanuñu trop di ñaan yàlla yàlla dooleel daara ji yàlla dooleel daara alxuraan yépp ci àdduna bi yépp ba l'islam gën a jolli ci àdduna bi tey jii soo ko seetee si presque cinq milliards d'habitants euh, lu ci ëpp a julli lu ñu foo mënti dem ci àdduna bi jullit yaa nga fa donc ñu ngi ci kontaan lool lool lool lool ku jël doomam indi ko ci daara yi dugal ko daara alxuraan yaakaar naa ne li nit ki war a wut l'islam yaakaar naa moom nekk ci bopp ba donc yàlla yàlla dooleel l'islam yàlla dooleel ñi ñi ci taxaw gën ko màggal gën ko réyal gën ko joxal fulaam yàlla na ko yàlla def man nag seen seeni Umar suma rakk la suma doomu tante la tandis que jarbaatam yi euh, suma jarbaat la ñu dégg donc benn benn famille bi la benn famille bi la nun doom bu ñu am rek ñu ngi seen loxo tey jii am nañu ci lu bari ci ñoom gannaaw yàlla sunu doom su ñu demee ba wàcc alquran parce que dimanche euh, samedi bee passé rek su démb moo koy def semaine ñu ngi woon kunun su ma sët ma fu wàccoon alxuraan jàng xam-xam ba di ko ñaanal samedi bi passé la le le yaakaar naa c'était le 19 donc euh, loolu aussi am nañ ci mbégte lool lool lool lool yàlla na leen yàlla jàppale jàppale mboolum jullit comme que affaire bi dafa xat euh, duma ci sore xanaa di leen ñaanal yàlla rek di leen ndokkeel lu ñu mënoon ren yàlla na leen yàlla mën loo déwén ay atu bare bare bare bare bare ñu gën a taaxoo ci diini gi gën a jàppale xele yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa mbokk julli yi ñu ngi leen di nuyu ci turu waa Pikine yëpp rawatina inspecteur bu mag Ismaïla Diallo ak inspecteur nduur ki nga xam ne mooy inspecteur langue arabe. ci goxu pikin yëpp seen tur laay waxee ak juróomi inspecteurs yi topp ci ñoom ak mboolem enseignants yi Pikine yu français yi ak yu arabe yi mboolem directeur yi nekk Pikine doon ay directeur l'école France parents d'élèves yëpp ñu ngi leen di nayu di wàccee sunu nuyoo ci daara jii nga xam ne sunu mbokk mu baax mi ñu doon wax léegi moo ca nekk gis nañ moos lum ñu jot a wan ci ay namaasuj yal na yàlla continuer loolu yal na yàlla barke loolu ñun nag bu ñu fi ñëwee ci turu inspection bu Pikine wax naa ko léegi ñëwal leen fi mboolem enseignant yi waaye ñëwal leen fi suñu mbokk maxtaar ndax boo gisee kat bésam jot inspecteur bu mag bi neexu fi inspecteur Ndour biig ci guddi la ma oo moom itam nekku fi waaye ñu ne ma noo mun a def nag ñu teewal ca bésu maxtaar boobu ndax maxtaar kenn la ci ñun ma sooloo xele la mais xele bu ne mën a bokk ak mag ñi la yal na ko yàlla aar aar njabootam aar mboolem njabootu jullit yi maxtaar ci ñun ku rëy la maxtaar ci ñun ku mag la maxtaar ci ñun macha allah liggéeykat la loolu nag man maa ko seede man ki nga xam ne maa koy fekk kalaasam muy jàngale may xool xam li mu jàngale ni mu demee baax na wala am na leneen lu ci nekk parce que yonent bi sallallahu alayhi dafa am lu wax. dafa wax ne ñett kat mën nañ seede ki nga bokk dëkk wala nga bokk moom kër wala nga bokk moom tukki wala nga bokk moom xalaal ñii boo leen seede ñett yi koo ci seede rek sa seede mën na nekk seede bu dëgg maa ngi nuyu itam encore une fois njoon maa ngi ko gis si place bi directeur école 2 maa ngi ko gis ci place bi ak ñeneen ñu nga xam ne ñi yàlla dogal na xëy na gisuma leen ñi ci ko taabal ji maa ngi leen di nuyu nuyoo lislaam man daal li may wax mooy am naa lu nga xam ne ku kuñ yónni moom la doon uti kon bu ma demee dana am lu ma jox ki nga xam ne kii ñoo ma yónni woon muy waa Pikine inspection pikin mbokki jullit yi ñun ñu bokk yàlla yal na yàlla jàppale ñu yal na yàlla suturaal ñu alquran bii yal nekk suñu ndëgër laay alquran bii yal na nekk suñu wettal ci àddina ak ci àllaaxira waaye maa ngi wax ne toujours dama ko wax ci samay jataay bala may kii maa ngi nuyu waa Gédé gi ñu fi doon cité léegi xaw ma leen mais maa ngi leen di nuyu turu seen responsable bi dama ne alquran waxtu wuñ ko na bàyyee jàng ci kaw suuf yàlla laxas suufam si sànni xamatu fi soxla kon nag bu ñu gisee xale yu tuuti macha allah uteeg démb nga xam ne bala ñu doon mokkal alquran ñun ñii li ñu daj ci daara yi yalwaan nañ dem nañ ci lu war a mat fukki daara daara ji ci nekk jàng nga fa lu mat fukki at te taxul nga mokkal alxuraan wala ñu tuuti ci ñun ñoo ci mokkal alxuraan kon bu ñu gisee tey yàlla soppi jamonoom ba xale yu tuuti fukki at fukki at ak juróom wala lu ko manqué di mokkal alxuraan fa tabarakallahu loolu kat xam nga li mu firéem inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu àgg li leen ma yàlla moo wàcce alxuraanam moo koy garde gis nga kër buñ bàyyi lii rek yàlla indi leneen lu gën a yéeme lii nit ñi di ci mokkal alxuraan force te duñ ci man dara kon nag alxuraan ngoog ñu ngoog ñun ay jaami yàlla lañ alxuraan téere yàlla la yàlla boole ñu alxuraan nañ nangoo ànd ak alxuraan tawaan wakkalaan bokk jullit yi fii laay amale suma kaddu di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf. la. mun a bu xam liggéeyam te ñëw heure di wàcc di wàcc heure di def liggéeyam ci anam ñu gën a rafetee kon daara bi mu ibbi fii te ñu ñëw fi di def ci conférence bi ba ma gisee xale yi fii vraiment dama bëgg kontaan bon liggéey bi rafet na trop trop trop xale yi mokkal nañu tari bi rafet na di ko rafet bu baax a baax ah man lii gëj naa ko gis. Mm. xale yi mu ne nii alxuraan gëj naa ko gis. Mm. vraiment liggéey bi ñaan yal na liggéey bi barke yal na gën a jëm kanam. Mm-hmm. ngeen doon ay njiitu daara rawatina daara yu mel nii boo leen ñëwee li ci jiitu éducation ngeen ko fiy gis mu doon lu am solo loo xamante ne ñëpp ci war a teg seen bët di ci nàmpatal xale yi bu baax a baax. waaw wane wane nañ ko wax dëgg yàlla macha allah parce que wane nañu vraiment ñii am nañu am nañu def ci xale yi xale yi xale yi xale yi sont très très éduqués mm-hmm. ah, boo gisee. dañu correct seen seen yëre yi yëre yi ñu sol dafa correct euh, jigéen ñi dañu correct yëre yi jot dañu sol xale yi góor yi correct mhm. vraiment doxin doxin bi correct Euh, euh, tari bi aussi dafa correct ça ba dire que lii xam-xam mi ngi fii ci daara bi waaw ñii vraiment ay jàngalkat yu xarañ lañ ñi xam ne bu baax fu ñu teg seen tànk xam ne mu ñu jàngal mokkal nañ ko wax dëgg yàlla donc ñi ngi def xam-xam bu wér ci xale yi waaw loolu voilà ngeen jëf ba tey mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi fii ci xafla bi nga xamante ni ci daara ju mag ji nekk fii ci diwaanu Pikine waaye ñu taxaw ak Serigne Soumboulou Sylla moom it euh, mu am fi ay njaboot yoo xamante ni dañoo nekk fii ci daara ji di fi jàng li nga xamante ni mooy alxuraan alquranul karim xam naa incha allah rabi ñu fa yéene ko dékk suñ micro rek mu wax ci lii nga xamante ni moom la oustaz di def ci gone yi te moom mu doon loo xamante ni mën nañ cee wax lu wér ndax mën nañ ne doomam mi ngi fi du ñàkk loo xamante ni gis na ko fi ci doxalin bi nga xamante ni oustaz mi ngi ko ci nampatal xale yi bu baax a baax a baax sëñ Sumbulu waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu tuba Vision ak euh, ñi nga xam ne si ne ñëpp ñu koy suivre à travers le monde ndaxte man maa ngi doog di am ñaari fan ci Sénégal man siin la basé foofu la résidence aussi foofu laa yore société ah li ñuy njëkk def mooy sant yàlla ci Sénégal ci at yi li ñuy fii feeñ gis nga te résultat bi commencé naa feeñ parce que Sénégal bu demee ba nga xam ne si ne sur le plan international lépp lu ñu fiy def ci ay trophée ci wàllu alquran Sénégal ñoo koy jël kon loolu dafa mel ne liggéey bii ñu liggéey ci suuf mi ngi commencé di am ay résultats loolu ñu sant yàlla la muy daara bi nekk ci benn daara yàlla def nun ay kan lañ waaye euh, li nga xam si moom la ñu mënul suñu bopp mooy kan moo ñu taxawul suñuy njaboot kan moo ñuy yaral suñu njaboot kan moo ñu jàngal suñu njaboot kon bu amee ñu taxaw loolu ah li ñu njëkk a def mooy sant leen mm-hmm. di sant leen ci liggéey boobu te xam nañu jàngale jafe na am na ku ko wax léegi mm-hmm. boo nekk sa njaboot ci kër gi rek yow da nga am coona mm-hmm. ki nga xam ne si nag moo taxaw sa njaboot ci ay at di ko jàngal di ko toppatoo kooku coono bi mu tegowoo coona bu mag la uh, man nag yàlla dafa def ci daara ji man naa ne sama ñetti doom uh, jaar nañ fi ñaar ñi génn nañ kenn moo fi nekk moom wàcc na nii Euh, wax dëgg yàlla euh, yaakaar naa ne xaj na ci tari bii ñëw dina bokk ci tari keneen ki itam ki fi génne ren ji am na entrée si en français aussi mi ngi euh, continuer école français ah liñ ci gis nag mooy wax dëgg yàlla liggéey bu rafet ndaxte xele li ci am solo mooy da ci am solo njàng mi mais da ci am solo itam santé da ci am solo itam éducation te loolu gis nañ ko ci daara ji moo tax itam ñu gën koo ñemee mhm. deuxièmement itam gis nañ ne. Mhm. xale yi nga xam ne sii ne ñooy jóge ci daara yi man fee ma nekk yàlla dafa def euh, entreprise laa fa yoro ay chinois dañ may liggéeyal. Mhm. Mm, ay euh, sénégalais yoo xam ne sii itam Euh, ci réew mi liñ jàngee yàlla dafa ñu euh, am ay bourse jànge foofu am ay master 2 am ay MBA da ci am ñoo xam ne ñu ngi liggéey man xam naa lu mat cinq parce que ñu ngi liggéey ci man parce que euh, comme entreprise bu mag laa fa yoroon mm-hmm. léegi mais xale yi jóge ci daar yi itam am na ñoo xam ne dañuy liggéey man mais li ma seetlu mooy mm-hmm. am naa ci benn xale boo xam ne dafa jege daara mm-hmm. aussi am bag en arabe mais bi ñëwee foofu pour mu def chinois bi xam nga école chinois yi ñu leen formé ci langue bokk na ci ñi gën a ràññi fii may wax ak yow mi ngi def spécialiste chinois te ci daara yi la jógee xale boobu fii ne bu koor ñëwee waxuma la chinois bi mu jàng ak euh, enseignement supérieur bi mu jàng en chinois. Mhm. mais bokk na ñuy jiite ci jàkka ji gën a mag ci Chine. parce que euh, dañuy am ay imam yoo xam ne dañu leen di jëlee Mauritanie di jël leen feneen mais bi ñu xoolee moom testé ci moom. bokk na ci ñu fay jiite te ci daar yi ñu jóge te mi ngi spécial en chinois. aussi liggéey bi mi ngi koy def comme ñeneen ñi nga xam ne si jàng nañ nasaraan ni ñu koy defee. kon loolu li ñuy war mooy sant yàlla xam ne. nit ki ci boppam xaj na euh, bu ñu defee li nga xam ne si ni moom la suñu boroom euh, digal la ca des moom moo koy mottali borom te loolu ñu koy gis ci daara yi euh, man dama koy wax toujours seen bi dama de ñu bari di naan université bi ak daara ji kan moom man ci économie Sénégal man opérateur économique laay wax en tant que opérateur économique ma ne leen du concurrence waaye dama ne daara ji ak université bi dañoo war a jàppante pour ñoom ñëpp am confiance ci seen diggante wóolonte jàppalante pour économie Sénégal mën a dem parce que boo si opérative économique yi nga xam ne tey ñoo gën a feeñ te ay nit daara lañ waaye nag dama ne leen économie rek yorul réew waaye nag tey ji mu ñëwee itam ay ci hôpital yi wala tey ji boo demee ci banque yi ay nit ñoo xam ne ci université lañ jógee loolu itam xam nga mënut a ñàkk ci réew mi kon nag daara ji ak université bi nañ jàppante ñu xëcc ngir Sénégal am développement te loolu la ñu am yaakaar ëllëg Sénégal euh, nekk Sénégal li ñuy wax émergent ci émergent ci ay valeur am mais émergent ci économique émergent ci ay jikko émergent ci avancement loolu daal la ñuy ñaanal Sénégal macha allah sëñ tey ñu dégg say biir yi wax euh, njëriñ li nga xamante ni wala avancement bi nga xamante ni Sénégal am nañ ko ci njàngum alxuraan bu baax a baax a baax mel ni du fi lu bees ndax it bu ñu xoolee suñu mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi jiitu seen yét yéen yitte yëpp alxuraan la woon ba gis ngeen année yi ñu génn suñu ñaari gone yooyu nga xamante ni demoon nañ fële ci Malaisie trophée bu mag boobu nga xamante ni moom lañ fa jëloon waaye lii ñëw bokk ci li nga xamante ni day gën a dëgëraatal loolu say biir wax mu doon avancement bu am képp koo xamante xamante ne waajur sa nekk ci daara yi loo war a euh, góorgóor la bu baax baax a baax rawatina yéen ñi nga xamante ni ñu ngi leen di seetaan fu nekk lan ngeen di wax seen mbokk yi nga xamante ni ay waajurañ te war a bàyyi seen doom ñu dem jàngi. ah nun de liñ leen wax fàttali doon niñ koy fàtte suñu bopp réew mi dafa am lu fi jëmbat réew moo xam ne si ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul lam daan wax kitaabu rabbihi wal kitaab wa fii xaala zaakal kitaab yaakaar naa buñ jàngee même li nga xam ñu bari mokkat ko muy euh, euh, ay jawharut nafis walla tasawudu siqaar wala ay masaliku jaan lépp lu mu ci wax rek alquran la ci tagg loolu li muy wane mooy am na lu fi ji loolu ñu fi day ker garab garab googu nag la borom xam-xam koo noo li naa shajari yar yarmuunakum bi xajari tarmuunahum bi samari bu ngeen nekkee yor leen jikkooy garab ndax garab googu garab gi nga xam ne moom la mag ñi ji na ngeen yor jooju jikko lan mooy jikkooy garab garab boo ko sànneew xeer loo sànni xeer lan la lay sànni mooy fruit maanaam mango tey boo demoon xele bu ñu sànni mango dañuy sànni mango waaye mango bi du jëlaa aw xeer waxoon day xaañ xele mais day wàcce mango loolu li ñu bëgg a mooy jikko yi maanaam tey jii kat nit du fekkee dañuy def jikko ji du noonu ñu delloo ko lu noonu wala ñuy comporté benn jikko waaye na yor jikko yi garab ku la def lu du noona nga faye ko lu rafet boo tàngee mu sedd boo tàng woon boo duggee ci ran garab lan ngay am da ngay féex boo feebaree boo ñëwee du la yokk du la rey mais garab da faj kon garab yooyu nga xam ne moom la fi ji moom la ñu yor jikkoom ci suñuy mbir suuxaat ko ci xale yi xale yi dafa am loo xam ne bu ñu xasee suuxaat ñoom ëllëg dama ne compétition la. adduna bi dafa jaxasoo. mondialisation man yàlla dafa ne Sénégal gi laa juddoo waaye mosuma woon a na tey jii kat sama lépp Chine lay nekk dix ans mi ngi ne yoo xam ne jataay bi mosuma koo fekk fi sama doom nag ñu fi jàng mais fekk fekkuma ko maa nga nekk ci Chine waaye nag nit ki. dafa boo fay dem dafa am loo fa war a yóbbaale bu dul boo ko defee boo ko defut boo demee da fa seey. <laughs> loolee nag mooy éducation base bi te la ci raw mooy alquran moom laay dénk sama mbokk yi di dénk waajur yi di ko dénk sama bopp ñu jiital ko ci xol xol ci xale yi. <laughs> fu ñu dem ëllëg duñ fàtte fi jóge woon. <laughs> duñ fàtte liñ fi bàyyi woon duñ fàtte leneen tax a jub. parce que yaakaar naa ne Sénégal dafa bokk réew yi nga xam ne si ne tey jii kat fu ñu dem dañ leen naw ci ay jikko. parce que dama la ko wax sëñ bi dafa amase nekk benn réew bu wax Afrique du Sud. Euh, bi nga xam ne si mooy defar euh, hôtel bi. mu wax ma benn bés dama ne ay want to be muslim damaa bëgg nekk jullit. ma ne ko lu tax nga bëgg a nekk jullit. mu ne ma ndaxte jullit du def li ñuy mistake maanaam du nekk def lu dul noonu. maanaam moom hôtesse bi bu gisee ci wane wi sax ni ko jullit bi di defara bu wàccee ak jullit du ñëw maanaam keneen ki nekkul jullit mën naa ñëw mandi yàq néew bi yàq lépp mais loolu gisu ko ci jullit yi jikko yooyu nag ci boppam la xool a xool moom mi nga xam hôtesse la rek day defar chambre bi defar toilette defar defar tegel mun a jikko yooyu moo ko neex ci jullit loolu lu mu ñuy fàttale kuntum xayra ummatin uxrija linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi na tanhawna anil munkar fu ñu mën a nekk yow war a nekk exemplaire ci adduna bi Eh, lu ñu koo nekk nag lu dul duñ koo def ci noonu mhm. gis nga xele lu mu nàmp moom lay gàll kon nag xele yi ëllëg liñ buñ leen nàmpalee ci alxuraan mhm. ëllëg fuñ mën di nekk itam danañ xam ah liñ doon mhm. danañ xam la leen fa war danañ xam la lañ fay def ak lañ fa wërta def loolu mooy li nga xam ne siire yi mu doonoon sëñ Soumboulou ngeen dégg ko ci témoignage yu am solo yooyu nga xamante ni yëkkati na ko ci daara ji waaye yëkkati ko ci doon ay parents d'élèves te it di ñu bàyyi xel fenn fu nekk ci biir réew mi nii rek la ñuy wéyee ak yéen mbokk yi wan leen li nga xamante ni moo des ci liggéey bi nga xamante ni mooy xafla 2017 fii ci daara yi Seydina fii ci Pikine ba tey ñoo ngi fii ci xafla 2017 daara ji waaye ba tey ñu taxaw ak soxna Marème Diop moom it doomam bokk ci ñi nga xamante ni tey jii mokkal nañ lii nga xamante ni moom mooy alquranul karim mu doon loo xamante ni soxna Marème lu xol sedd la tey bi nga teewee sa doom di tari ana loolu nak nga ko yëgee tey sa xol. aaju billahi min seytaani rajim loolu bi ma ginnaaw dama dama dama sant yàlla daal dama kontaan parce sa doom ko ci daara ñu ko ba mu mokkal loolu sant yàlla la man dama kontaan fi ne sama xol dafa fees daal moo tax ma ne rek mu ne ma wax parce que oustaz Omar mi ngi yoree xale yi nii ñun amuñu fayam vraiment parce que yor xale dafa metti neuf mois nga jël xale jël sa doom jox ko ko mi ngi sang mi ngi jox mu lekk mi ngi jox mu naan dara manqué wu ko vraiment dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal ñaan bu sori sax man nag vraiment c'est la première fois may taxaw ni di wax am loo xam ne mënut a ñàkk mënut a ñàkk daal ñu ngi koy ñaanal moo xam li mu bëgg ci daaram di yàlla na ko yàlla defal yàlla na am ay daaray daara daara du lu jeex yu bëree bëree bëree bëri vraiment kontaan nañu kontaan nañu trop ba vraiment ba fu kontaante yam man daal fa laa mën a yam doomu mënut woon ñàkk rek moo tax. bi nga teewee daara ji day mel ni yàgg nga fee teew di seet si kii nga xamante ni mooy sa doom ji fi nekk ana boo fi teewee ci yan anam nga koy fekk euh, muy nekk yan anam ndax day baaxoo kenn ku nekk ki ñu ñi ñuy bàyyi xel xam bu baax a baax xale yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci daara ji ñu ngi ci euh, loxo yu wér loxo yu baax yoo xamante ni tey dina tax ñu xemeem loolu tey ba indi fi seen doom. vraiment bu ma ñëwee man ma ne salaamaaleykum ci porte bi rek mhm. sama xol day sedd parce que premier fois bi nga jël xale bi di indi man dama fonoon comme yeneen daara yi la jël sa doom indi duñ ko toppatoo duñ ko du sangu du ki yooyu mais bi ma njëkkee ñëw seet ko si dugg ci daara ji sama xol dafa sedd ba xam ne ne kii mi ngi ay loxo yu wóor xale yi dinañ leen sang bañu set seen yére day set boo ñëwee nga xooleen leen nga xam ne ñii ñu ngi ci ay loxo yu wóor dinañ leen sang dañ leen diw dinañ leen pañe seen pat seen boros seen dara du manqué xiifuñu maruñu wax dëgg yàlla ngay ñëw xam ne xale yi ci ay conditions yu baax lañ nekk vraiment loolu rek dafa doy parce que nga gis sa doom joxe ko nga fay sa xaalis gis nañ ko fi du lakk jeexalu ko da ngay gis sa doom di fay sa xaalis boo ko ñëwee nga xool yow da ngay rëccu sa doom la nga ko doon joxe fi mais du daaray oustaz Omar mii boo sa doom boo ñëwee xool da xam ne xale bi vraiment mi ngi ci état bu baax xam te loolu rek ñun duñ koy fay nii loolu loolu du fay comme ni ñuy waxoon sànq rek ay 35 mille ak sa doom téye ko yaral la ko ba mu màgg def si moom diine xam-xam kooku mënoo ko fay ba illaa yow mi diin mhm. mënuñu ko fay mhm. vraiment mooy li ma waxoon rek mënuñu ko fay dañ koy ñaanal am payam yàlla na ko yàlla fay vraiment merci beaucoup jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ba tey ñu taxaw soxna Fatou Wade moom it bokk ci ñi nga xamante ni tey jii seen doom dafa tari fii nga xamante ni mooy ci daara ji nga xamante ni tey nekk soxna Fatou bi nga teewee tey jii sa doom di yëkkati li nga xamante ni mooy alxuraanul karim xool li ñi teew ñëpp sedd waaye rawatina yow mi nga xamante ni yow yaay waay juróom ana loolu tey lan nga yëg tey ci jataay bi salaamaaleykum wa rahmatullah mhm. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mhm. sayyidina muhammadin sallallahu wa sallam xanaa di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu santee yàlla ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant nag seen oustaz yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne commencé ko ci seen mudir muy oustaz Omar Diop ba ca ña ca gën a suufe ci daara ji ndax wax dëgg fa yàlla xol fees na xol sedd na ndax nit mënut a am lu gën ci njabootam mu jàngal ko Qur'an boo jàngalee sa njaboot aan yar leen ci yarub diine de yàlla deselatu la dara yow kay yow doomu aadama yaa desel yàlla dara ndax yàlla mi ngi xale yi bare nañu macha allah ñu ngi ci dëkk bi doomi jaambur yaa ngi taxawaalu nga leen di gis yàlla may la. boole la ci ñi nga xamante ni seen i doom dañoo nekk ci daara yi nekk doomi daara bi ma teewee tey ci tari bi lu dul xol dafa sedd rek ma dolli santaat yàlla tey ñaanal seen i ustaat yàlla aar leen yiir leen sàmm leen te yokk ko ci seen i balance yi jëf def ko ci seen misaanul xasanaat yowmal qiyaam tey moom kontaan nañu lool wax dëgg fa yàlla kontaan nañu même ñi seen doom tariwul kontaan nañu même ñi seen doom tariwul am na ñoo xam ne tey jii ci conférence bi la ñuy daal di ñëw gis xale yi tari ñu daal di am xemmemteef pour indi seen doom ci daara te doomu daara ak doomu bitti du ñu yem du ñu yem mukk te du ñu ma a yem ndax tamit sëriñ daara bi ak kay jàngale leneen wala kay liggéey leneen du ñu ma a yem waa wax na ko fi léegi ci wàllum économie soo ko xoolee ñi fi kii yu baax yëpp tey doomi daara lañu ci daara yi la ñu génnee kon nag mënuñu def lu dul di gërëm ak di sant seen ustaas yi nga xamante ne ñoom la ñu nekkal ndax waxuma la lenn lenn waaye yow ki la téyeel sa doom xiiful marul dara jotu ko bu wéradee ñoom ñooy gàddu yóbbu hôpital waxuma la lenn yooyu noonu yëpp sax waaye yow boo bëggee nelaw rek yaa ngi dàq xale yi léegi ana xale bi nga xamante ne yow moom doo ko dàq dañ la koo téyeel uniquement pour mu jàng xam dara waaye yow yaa ngi nelaw say nelaw yaa ngi nelaw say nelaw kenn yàqalu la kenn dérangé wu la te wallaahi yëg nañu seen coono ndax xale yi ñu ngi nii di bëgg a jël feet waaye juróomi fan bu ñu ko àndee ñoom rek dañuy yëg coono gi sëriñ daara yi nekkee ak ndeyi daara yi wax dëgg fa yàlla amuñu seen fay xanaa di leen bàyyeeg yàlla mi am fay mu fay ñëpp di jaajëfal waa Touba Vision te di leen ñaan yokkute yàlla sa sàmm leen aar leen yiir leen ñu ngi leen di jaa jaajëfal jërëjëf